jërë ngeen njiit réew mi nee fa lépp lu jëm ci renforcement défense nationale loolee amul ak njëkk soleil national doole ci dañu xibaar ne moom njiit réew Macky wax na démb ne ci diggante ba muy ci fukkeet ak benn yi mu jiite réewum Sénégal budget bi ñu jagleel wàllu défense yokku na yokku gu toll ci xew-xew wooye mu teewee démb ca kanjal Diop di journée des forces armées témoigne ñooñu nee nañu mooy bu mujj bu muy teew moom Macky Sall en tant que président de la République enquête dina nañu moo taxit tàgg na leen démb tàggatoo ak ñoom ba leeral fa li mu def ci défense nationale bi mu jiite Sénégal ak léegi bokk na ci budget bi mu yokk ba mu yegg ci 250 pour cent li mu soldaar yi président Macky Sall nee na yokk na ba ci 60 pour cent wax na fa militaire yi ne déwén ak jàmm ki may wuutu ci bopp réew mi mooy taxaw fii di wax ak yéen moo leen di commandé ngeen koy déggal yamu rek ci tàggoo ak tàggatoo ndax journal las mi ngi ñuy wax ne Macky Sall wane na doole ji Sénégal am ci wàllu kaarange kàddu yi mu yëkkati démb Cheikh moom président Macky Sall journal Tribune journal L'Info réew mi quotidien ak le quotidien ni ñu ko gisee mooy kàddu tàggatoo Vox Populi ne boole ko kit di ndamoo ko kañu ak di rafetlu fi mu fekk l'armée Sénégal ak fu mu ko yóbbu ma yóbbu leen ci journal Sud Quotidien mi ñu xëy yóbbu ci waxi politique ab laaj la xëye laaj bi moo di ni président Macky di doxale ak Amadou Ba tànn ko def ko candidat bu Benno Bokk Yaakaar bu nuppi dar ko neb dar Sall moom ak waa këram yi Fatick ak Fuuta gi ñu jàppe seeni titre foncier buñ fa defarul seen toogaay danañ fa mbetteel mu rëy ndax maa fi mën gi waa këram yi nekkee ca Fatick mu di bataille de leadership gi moo leen fa nar a yàqal lu bari parrainage yi ñuy collecté sax journal bi na ñu Fatick moo ci jëlagum ndaare ndax 30 800 parrain amagum leneen lii wane ne responsable yi Benno Bokk Yaakaar ca Fatick jubawuñu point actu nee nañu mooy Biram Fay Moïse Sarr Souri bi nee nañu ci Abidjan ga ca d'Ivoire président bu amicale centrale des Sénégalais de Côte d'Ivoire di Tidiane Sambali moom ak ñi mu àndal ñooy daje ci Abidjan jaajëfal président Macky Sall dem ci réalisation yi mu fi bàyyi ñu bàyyi ko fa fekkante ji ci xët mu njëkk journal Tribune yéenekaay bi gis na ni mbir yu ci mel ni mbiri Karim mbiri Khalifa Sall ba ci mbiri Ousmane Sonko yi mujj booy seet bay seet askanu Sénégal rek ñoo ciy perte ndax Macky régime feneen fu ñu mënee sur ne nañu mooy justice bi sant leen lu leen arrangé ñu jëfe ko ndax ci fukkeet yi ñu fi def amul benn décision bu leen cour de justice bu CEDEAO bi bi santoon ci mbiri Karim Wade 2013 Macky defuñu ci dara li leen cour de justice bu CEDEAO bi santoon ci mbiri Khalifa Sall 2018 Macky Sall defuñu ci dara li leen cour de justice bu CEDEAO bi santoon ci arrêté Ousmane Ngom bi Macky Sall ak mujj Ousmane ak i mbiram Walf Quotidien na ñoon li ci jaaxal ñu bari mooy noppi gi nga xam ne opposition bu Sénégal bi noppi na ci ne direction générale des élections ak Ousmane Sonko ñoo ngi bëjoo rëy kenn déggu ci opposition bi ay coppite am ci Sénat commission électorale nationale autonome kenn déggu ci opposition bi processus électoral bi ak ni muy doxee ba léegi kenn déggu ci opposition bi ñu déggee ci xët mu njëkku libération ay xibaar yu jëm ci gaalug ga ca gàddaay ñane woon ca gaal ga libération nee kenn ki jigéen la di benn femme bu amoon fanweeri at yi ak mbëkk mi Le Quotidien nee nañu mi ngi bëgg doon aw xewit ne li ñu seetu léegi mooy gaalug immigré clandestin gu boo xoolee da nga ci gis ay jigéen ji ñu gis ci l'Observateur li ko dal du jàmm bil yéenekaay bi benn femme bu am jëkkër ñu naan ko M Sarr moo yóbbu aw faram ci tribunal bu Mbuur tax moom femme mariée bi nee far wi dafa sàcc juróom-ñeenti million coow laak fa mu mujj lépp a